tollul foo xamante ne war na dëddu àdduna waaye dafa dëddu woon ci yu bëri làqatu nekk ci liggéeyam di làqatu loolu nag bu amee dañu koy dañu koy sant yàlla ak njabootam ak way juróom yi nga xam ne yar nañu ko di tàmbali njaal mi ci sunu yaay soxna Kiné Diouf Diaga waaye di ko jaale borom këram mu di Bougane Gueye Dany di ko jaale frère am Waly Balago man nag ñëw naa ngir gunge ko ci kër dëgg gi këram gu mujj waaye dama ko gunge en tant que deret dëgg la showbiz bi day tax ba yu bëri day jaxasoo média bi aussi day tax ba yu bëri day jaxasoo waaye moom yi sama sama sama sama tante la ndax Thione Seck mi bokk ak Aïda Seck benn ndey moo bokk ak Aïda moo bokk ak Fatou benn yaay Fatou Assane Fall jur Aminata Niang mi ma jur donc sama tante la